jërë ngeen jëf ku ñu kaw dagg sa wëpp law jeex l'observateur na nañu loolee ba nekkee rek ba ñu tegee loxo Ousmane Sonko dëkk bi yëngu nit ñi di manifester manifester yi law ba téq waa jaw be ca la ñu taaloon mairie ba taaloon duwaañ ba taaloon it gendarmerie bu dëkk ba gendarmerie bu jaw be boobee ñu taaloon caxat-caxatee ko na ba di tegu der di songu askan wi di leen sàcc ak di leen cambriolé ñi ñu gën a singli ci nañu ñoo di commerçant yi ci dëkk ba ca manifester yooyu indi andi lii lépp ñi nga xam ne ñooy ñaari responsable yi parti Pastef yi ñu tegoon loxo ci diwaanu Touba andi leen Dakaaru di Mame Dame Lo coordonnateur jeunesse patriote ak Bada président commission d'organisation Pastef Touba ñoo ngi nittali ci sursuwa ni ñu dundee jàpp gi ñu leen jàppoon ka njëkkee ca wax ja moo di Mame Dame Lo nee na keroog ba leen alkaati di jël si wanuñu leen seen carte professionnelle wanuñu leen it benn mandat de perquisition dañoo a solee ay yére yu baax mu ne kilo moom la ñu ko jàppee moom la ñu leen ci garde à fukki fan ak benn téye leen ci kaso bi fukki fan ak ñett tey li ñu leen doon toppee ak doon leen ko tuumal xamuñu ci dara Vox Populi xëy ñu xamal ne chef protocole bu Ousmane Sonko di Djibi Gueye Ndiaye convoqué nañu ko ca division investigation criminelle mu di ca dikk tey ji ci àllarba ji ca la war a wuy ji manifesté yi woon ci buntu kër Ousmane Sonko keroog altine juróom-ñetti fan ci weeru mars bokk na ci li ko alkaati division investigation Mountakha Mbacké Bassirou santoon département d'état bu Amérique Les Échos nee nañu rapport bi ñuy def at mu nekk jëmale ko ci tolluwaayu droit de l'homme ci àdduna bi ci seen rapport bu mujj bi wax nañu ci ne àq ak yelleefu doomu aadama mu di droit de l'homme lu sooxe la ci réewum Sénégal nekk ni nit ñi ci kaso yi sajj xef yi ñuy sajj xef góor jigéen ak lesbiennes yi ak ñiy bëgg a manifester ñu leen koy aaye ba di leen ci jaay doole Les Échos nee nañu yii mooy yi ba tax ñu épinglé ko ci seen bi beneenub rapport ci la Sénégal rapport la bu tukkee ci jàngat ak gëstu boo xam ne docteur Ndeye Amy Ndiaye def na ko Ndeye Amy Ndiaye docteur professeur la ci wàllu droit international pénal di jàngaleet ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jàngat bi mi ngi jëm ci fitna lente gi ñuy nemmeeku ci diggante góor ak jigéen étude ba nee bu ñu jëlee ñi nga xam ne ëppal nañu juróom fukki góor ñi ciy dund fitna ñoo ëpp jigéen ñi mag ñiy dorogewu di personne troisième âge réew mi quotidien nee nañu foofeet am na rapport buy wane neen ñi am lu ëpp juróom benn fukki at ak juróom ak lu tekk ñi ci tàmm dorogewu kenn mënu leen tàggale ak dorog kañ la train bi di diq lii quotidien nañu njeextel journal li quotidien soppi tur yi mu xëy amee xët mu njëkk Walf Quotidien yëral journal bi ci waxtaan bi mu def ak ñoom wax na ci mairie bu Ndar ba ko dénk wax na ci commande publique bi wax na ci autoroute à bi ak njëgam ba waxaalee ci démarrage bu train express régional bi fa la ne laata fanweeri fan benn ci weeru décembre 2021 TER mu di train express nationale bi dana tàmbalee daw ba ci 1-1 ci la mujj gayndee Sénégal yi dañoo mooy ne gàcce la ñu naroon a génne ci stade ba ne bi ñuy égaliser fekk na max ba jeex ba ñu toll ci temps additionnel yi sursoi nañu nañu ko santé arbitre bi ndax entraîneur bi Aliou Cissé ak cuuneem heure équipe bi footballee mu fenc ba ne fàng lambatu ak di tañax-tañaxi ne gaal gu réer biir géej loolee la dëkke record yéenekaay gis ne match démb bi tuuti soppi ko noon Sénégal jële ca yeddaange Les Échos nañu la ñu ca jële romb na yeddaange gàcce la ñu ca jële comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen gamme Opalia savon de Marseille créole ak kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mohamed ñu ngi leen di gërëm mbokk yi xibaar yeeg RFM ngan yi nga xamante ni tàmbaliwaat na ci prison yi Sénégal li ko dalee juróom-ñaari fan ci weeru avril jàpp leen ni kon ñi ne ci kaso yi daanu mun a dal di dalal seen am di jàmm eh, seen i mbokk ci wàllu visite waaye lépp luy kolli wala dund moom gu ñu war mun a jëlee ci biti dugal ci kaso bi duñu ko def lu may samedi yeeg dimanche yi àndoon nañ ci leeral ak soxna si nga xamante ni moo jiite wàllug service communication bu administration pénitentiaire bu Sénégal wér gu yaram gi ak ñu amee jàngoro yoo xooñoog seen i jafe jafe-jafe ci wàllu jalis gi waral ñuy sàkku état Sénégal yokk centre yi ci wàllu jalis ci réew mi ndax ba fii ñaar ko juróom rek la ñu am waral liste ñiy xaar di gën a yokku euh, muy gën a doon ay risque euh, ci ñoom kon ñu ngi woo ñoom association hémodialysés Sénégal état bi ci mu gën a yokk jéego yi ngir sowe ay bakkan soppite ci wàllu li nga xamante ni mooy euh, faral di am ne fitna diggante takk der yi ak askan wi ci manifestation bay jàppante am lan moo ko mën a gàttandu kar localité Wakhinane Nimzatt ak ONG Intermonde ànd lango boole seen doole ngir di amalay pencoog yeneen fexe ba police gën jege askan wi askan wi it gën di dem ci police ngir di jébaane ñenn ñi nga xamante ni ñooy wuy yi yàq penc mi Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi soxna euh, Yacine Pouy ci wàllu digital. corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi wàllu wér-gu-yaram ak dund ak ñi nga xamante ñu amee jàngoro yu roñoo métti lool ci ñoom ndax li nga xamante ni mooy wàllu euh, nekki nag euh, paju bi di wàllu prise en charge moo waral it euh, seen ak yëglu bu nu sañoon daal kilifa yi jàppale leen ci ba ak tan am ci ndax daanaka ci wàllu kon dialyse gi dafay cher lool léeg-léeg fukki junni yu tegal ñett ci séance bu ca ne ca nga war caa def ñett ci ay bës bi du lu yomb ndongo ka waxtaan na ci ak ñenn ci ñoom ca Pikine 2005 yamoon nag ak Alioune Sarr daal dee am fukki at ak juróom-ñett ci boobule at lañu ko xamal ni dafa daal dee ame nag lii di feebaru insuffisance rénale séance de dialyse bu mu njëkk a def nag mi ngi ko amal ci atum 2008. après laa xam ne si à vie étant jeune nekk di jàng si biir jàng boobaak léegi Alioune Sarr mi ngi wéy di xeex ak feebar bi tey jii mi ngi ci fukkeelu atam ak ñett nag muy def lii di séance de dialyse waaye am na si jamono joo xamante ne nii amoon nay jafe ngir wéyalee lii di bi. yi. au début a papa moomu jëloon en ñu daan fay soixante cinq mille la séance trois dans la semaine dem nañ ba si biir mënatuñ ko tenir fi ma nekkoon ñu renvoyé ñu nañu dañu am ay arrière lu ñu war a fay ce jour là trop si man. gile feebar nag am lu mu laaj ci wàllum régime alimentaire waaye ak ni suñu njaboot yi bindoo aliwun ni léeg-léeg dafay jafe ngir nga topp nag lii di régime alimentaire bi. doon naan ndox bu bari lépp lu am gerte doo fukki at ak juróom benn jàngoro ju nu mel na daal di amee liggéey bu muy def di dawal taxi doon ko may nag muy mën di faju feebar bu ma dal en dama doon obligé di fanaan taxi ba quatre encore du matin ñëw pour def dialyse waaye mu am ci bis moom dawalkatu taxi bi saalit daal di koy dikkal fekk nag mu waroon a xëy dem defi séance de dialyse war a suba yoruma cent francs am poos mu wut ndimbal fu ne amul ma toog di jooy mais damay bi ba fajar am ñëw saraxu parce privé laa nekk. ak li yëf yi di métti métti yaakaar nag daal dee feeñ ca boori caaro yi ak lu bitek centre de dialyse Saliou Fall ci hôpital bu Pikine. bu doon fay 65000 fois 3 nga dem a dem bañ jël la gratuit Saliou Fall nee woon man amatuma woon yaakaar sax pour dund. ndongo ak Pikine rajo Futur Media. ci wàll woowu la ñu des ba tey ndongo ak ñi nga xamante ni ñoo amee jàngoro yu xoñoo ak seen i jafe-jafe ci wàllum paju ndax ci Sénégal li ñu fa xayma ne ay centre euh, ci wàllu dialyse gi ñaar fukk ak juróom rek la donte nag des na lu bari moo waral it rang bi euh, seere lool ci ñiy taxaw di xaar euh, seen tour ngir kon def jalis googe euh, liste bi gën a yaatu risque yi na ko noonu ci ñoom moo waral association bi di yëgloo ko alerté bu nu sañoon kilifa yi Sénégal yokk centre jalis yi ci réew mi Doudou Sarr moo jiite mbootaay gi ñu teewlu ko ndongo kaa dafa nekk feebar boo xamante ne daa iman yaa ngi hôpital te ñett yoon sax moo normal ngay dem tëdd ci lal ñeenti waxtu ñu di la jaliser ci semaine bi boo ñu defee prévalence bi la la donc vingt cinq mille jusqu'à trente mille malades potentiels yi tamit kenn xamul nu mu toll état bi mu ngi ciy jàpp dëgg la la ma daan wax ci liste d'attente bi ñi lii rek la attente bi daal du dara ludul yow mi tëdd feebar yaa ngi faju yàlla na la yàlla sutural mais ka nekk ci liste d'attente bi xam nga lan lay xaar moom yow nga génn àdduna pour que moom mu door a mën a ñëw mën a faju moom su génnulee àdduna yow mi doon xaar yaay génn àdduna prise en charge bi moom état bi la jël na en charge ba doo fay mais nag loolu ci établissement public rek la 23 à 25 centres de dialyse répartis au niveau national li nga xamante ne moo ñu dajale tey jii muy don boo xamante ne lu toll ci 10 millions la ñu mën ci dimbali juróom fukki malaat ak juróom lu am solo la ñu daal di waxtaanee leneen muy ngan yi nga xamante ni ak visite ñu doon amal ci kaso yi Sénégal ñu ajandikoo woon ndax jàngoro coronavirus dinañ ko tàmbaliwaat yooyu visite juróom-ñaari fan ci weeru avril bi ñu dëgmal administration pénitentiaire moo ko xamle waaye jàpp na ni lu jëm ci wàllu visite yi altine la ba àjjuma bu dee nag euh, mbiram lekk wala loo xamante ni colis yu nuy indil ñenn ci kaso yi ñoom week-end bi njeextalu ay bés rek la nu mayee lu ni mel ndax ba tey nekk nu coronavirus ci àddina Sénégal na ko noonu soxna Mariam Ba Traoré la ñu ci àndal moo jiite service communication administration pénitentiaire bu Sénégal ñu teewlu kook Salif Sow. le 7 ñëw. Euh, administration pénitentiaire dafa décider reprendre euh, visite détenu yi ci biir kaso yi maanaam famille yi mën nañu ñëw seet seen mbokk yi ci biir kaso yi ak compter du 7 avril 2021 euh, visite yooyu nag dina am lundi ba àjjuma te directeuru kaso yi ñoom ñooy seet nuñ koy organiser loolu soo leen gisee ñu def ko dañu bëgg a éviter vraiment ay rassemblement ci buntu kaso yi loolu moo tax ñu doxale ko noonu toujours maanaam ci wàllu plat yi ak colis yi loolu moom dañ koy bàyyi ni mu meloon maanaam week-end yi daal samedi ak dimanche daal la ko seen mbokk yi mën a indil la ko seen détenu yi lañu mën a jot plat yooyu loolu soo gisee aussi ñu di ko def parce que mbas mi jeexagul te vraiment comme suñu population carcérale dafa sensible vraiment dañ leen bëgg aar aarale personnel bi loolu moo tax vraiment daal ñu ne daal nañu dellowaat visite yi mais tamit colis yi ak euh, plat yi ñu bàyyi ko noonu week-end yi pour éviter vraiment nit ñi di dajaloo moo tax ñuy invité vraiment famille yi ñu respecter mesures barrières yi di profito également ci occasion bi di leen di remercier ci seen patience ñoom famille ak détenu di remercier aussi le personnel parce que personnel bu engagé la ñu am bu dévoué vraiment. ñu waxtaanee yorinu forage su Kirène ñee dëkkee euh, ci village yi di Bondia Kirène ñoom di artu ñu ne euh, sous-préfet bu Sindia euh, nu yéene forage ba ñu baax ci loxoy Aquatec ndax dañoo gis ne daal donte passation service am na ci lu def ci làqu ci bureau sous-préfet ñoom daal bëggunu yorinu seen forage boobee ci loxoy waa Aquatech Abdourahmane Diallo. ñu dëkkee village u Kirène ak Bandia nekk ci commune Sindia fi ñu taxaw fas yéene ñu fa jógee seeni forage xalaatuñu ko jox waa Aquatech ngir ñu sàmmal leen ko Imam Souleymane Mbeng kenn la ci ñoom. dañoo jàpp nit ki soo ko fekkee muy doxal. nga gis ne la muy doxal dara sikku ca te nee nga danga nga koo bëgg a yokk pour mu gën a avancé booy andi dangay ngay andi koo xam ne moo ko sut waaye ñii nga xam ne ñoom la ñu bëgg andi fii ci Kirène di ko andi ci ci ci forage bi ñun yëg nañu ne ala kulli xaalin xool nañ leen càmbar lañ leen def nañ ci ñoom ay étude Sénégal bi mu daj amuñ fu ñu jaar jàll. ñu yokk di xamle ni société bii amalu leen benn njëriñ ndax ñëw fa pour taxawu askan wi. seen doxalin lëmb na àddina bi yëpp ne gestion bi ñuy def gis nañu ne jagul arrangé wuñ loolu moo tax nag ñun ñu taxaw jàpp ne loolu du ñu arrangé te it nanguwuñu ko te duñ ko mos a nangu. li ni mel sax a tax ñuy xamle ni duñu may benn waay buy ak Aquatech teg tànkam ci seen forage boobu. balaa muy jël ndox mi dañu ne. day jaar suñu kaw loolu moom duñ ci waxantu day jaar suñu kaw jaar ci kaw doole ñu xam ne doole la ñuy jaay waaye du xel du xam-xam. bu boobaa ñu doog a ñu doog xam ne loolu ñoom ñu ngi te bu boobaa it ah yaakaar naa ne bu jaar jaar dinañu dekkiwaat te fewngaat leen. ci fàttali. semaine bii ñu génn sous préfet bu Sindia amaloon na ci biir bureau joxante lenge diggante waa Aquatec ak benn comité RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane Ngadiaga la nuy wutali ci commune bu Notto Gouye Diama foofee euh, too teeni gaz ya fa euh, ca doon takk boobaak léegi fay nanu ko taxul askan wa seen xel dal jafe-jafe nga fa ñoom ba tey ci wàllu dundin rawatina ak xëyum ndaw ñi waral ndaje ak pencoo gunu ci doon amal ci njiital forum civil ci teewaayu Cheikh Anta Diop. suñu diggante ak teen bi daanaka toll na ci ñaar téeméeri mètre ñu ngi fii ci ngaje ga ñu ngi fi fekk nag ay takk der ñu taxaw di xool teenu gaz bii nga xamante ne fay nañu ko waaye askan wi yeewoo fii ci diggante nga jege ak jëllëg pël ne nañ ndéem bu teen bi fayee waaye ba léegi seen xel dalul Baba mu moom moo yor seen kàddu. ku ni usine gaz ni am na lu ciy dégagé woo ci ay tooke yoo nga xam ne baaxul ñun suñu wër gi yaram te loolu état mu ngi seetaan ñuy continuer di dund ak moom ñun population nga jega kon ñoom yàq nañ suñu tool yi. parce que fii ku ko xam-xam ni dëkku bay la ñu ngi fi bay ay légumes su pomme et cetera. soxna yi nee nañ ñoom li leen gën a ëlëm fukki teenu gaz ak ñeent lañu ñu samp fii seen gox waaye nee nañ ñoom gisuñu ci benn yoon seen bopp. jàmm fay na fan yi teenu gaal fu mu nekk fee sama raku yaay fee la doon sëy gis nga fii nii ba maa ba si garab gële keroog bañ leen ëkkatee jow ñu leen jox matul dara yi nga ñaari néeg la fa tabax xaas bi jeex da xam nga lool du yoon xale góor yi nekk fii dañuy bay normalement dañoo war a am liggéey Birahim Seck mi nga xamante ne moom mooy coordonnateur bu forum civil ñëwoon fii gis ni ñii di waa Ngajaga ñu ñu war a taxawu lañu. fii ñu taxaw nii nii ñu ngi toll ci presque lu toll ci trois cent mètres diggante fi doon tàkk fi ñuy tànqeet gaz bi ak kër yi nga xam ne ñoo nekk à côté da nga yéemu ci yàlla ni population di dundee ci ñàkk ndox ci ñàkk infrastructure de santé ci wàllu environnement lépp loo xam ne ci responsabilité sociétale la entreprise bi jàpp naan ne def ko. askan wi yeewoo fii ci Ngajaga nee nañ nag ñu ngi sàkku nag ci nguur gi beneen taxawaay ngir jàppale leen RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ñu des ak askan wi ba tey fii ci géejawaay ngir moytu rek ak euh, karaka gàttandu li nga xamante ni mooy faral di am léeg-léeg diggante takk der ak alkaati ay manifester ki jàppante yu mitti moo waral foofu géejawaay police euh, municipalité bu Wakhinane Nimzatt euh, ci blongo ONG Intermonde boole seen doole kattan ngir amali waxtaan lanu bëgg mooy ni nu ko waxee di karaka gàttandu yooyu xeeti fitna ngir kon néewal ko doole lool ci askan wi dugal ci loxoom bu baax lu ci mel ni xeex beeg wàllu wuyu ya foofee lu ko mën a saafara du leen lu may ak boole dénonciation commissaire départemental bu gox baa ni waxee ñu déglu ko Madjibou Lay ñu teewlu ko Oumar Mbow. boo demee ci vers les autorités décentralisées eh, da ngay gis euh, aspect sécurité bi duñ ko mettre au premier au devant de de de préoccupation mais toujours da leen di dab politique bu mën a jël ñoom moo xam politique économique la moo xam politique sociale wala culturelle wala bu mën doon bu ñu doxee tuuti rek xam ne ah, bu ñu police euh, jegewul du sotti. Mm-hmm. wala bu ñu yeneen force de défense de sécurité jegewul du sotti. mënoo envisager benn développement te amul sécurité. Mm-hmm. mënoo envisager politique bu sotti te amul sécurité. bu mën doon mën a ko envisager. Mm-hmm. te amul une forte dose sécuritaire boo xam ne moo koy moo koy accompagner sinon si voué à l'échec. donc loolu euh, vraiment du may appel bu may defal euh, ñëpp. politique yëpp. mais rawatina nag maire yi nga xam ne ñoo yor goxu xaat yi activités yi mooy waxtaan ak population yi rek waxtaan ak population yi am na ay panel yu ñu war a def am na ay waxtaan yu ñu war a def man mi bokk naa ci ñu war a intervenir Euh, liñ ci jublu rek mooy fexe bu population yi gën a xam nag lan moo leen war ñoom lan mooy seen sas ci waar yi nga xam ne mooy waaru sécuriser leen ñoom comme li ñu adage bi di wax rek tout ce que vous pouvez ak pour moi sans moi vous le faire contre moi donc li ñu bëgg a def nag pour ñoom dañ ko bëgg a def ak ñoom sensibiliser leen wax leen xamal leen dans le cadre de la police de proximité ñun mbas mee ñu téye rek euh, foog ñu organiser ay séance de football mais séance de football yooyu d'être en forme et ça nous permet également d'intégrer les populations dans nous ñëw vers nous xam ñun ñun ñooy kan xam ne ay nit rek a fi nekk tenue bi rek moo ñu différencier ci wër ballon bi football mënu nit di la marqué ci la mën na la cee jox information ah, mais commissaire yëg nga ne am na jaaykatu yamba bu nekk suñu gox am na suñu koñ bi nangam nangam su ko defee nga réglé ko te kenn du xam ne di wala a wax commissaire Madjibou Lay bu waxi naan euh, Nimzaat euh, ñi taxaw ngir défendre wàllu ak ak yelleefu doomu aadama muy défenseur droits humains yi ci lël lël bi nag juróom-ñetti fan ci weeru avril lay doon fii ci ndakaaru lanu ci jubul mooy rëdd ab mbébét jëm ci wàllu loi projet bi ngir di aar ak sàmm activiste influenceur ak ñi nga xamante ñuy lanceur d'alerte yi Euh, muy kon li sabab gëstub RFM seen ndaje moom ñu nas juróom-ñetti fan ci weeru avril ngir xool luy seen liggéey ñoom activiste yooyee ki lanceur d'alerte euh, lu ñuy taxawee ak euh, fu seen mën-mën yam gëstub Salif Sow ñoom nee ñu ay activistes lañu ay influenceurs ak i lanceurs d'alerte ñoom nee ñu li ñuy xeex mooy lu jaarut yoon nekk ci pinc mi ci gis-gisu secrétaire exécutif bu LSDH di kuréel gi yëngu ci wàllum xeex àq ak yelleefu doomu aadama moom mi daa jàpp ne ñoom ñii ci seenub njaboot lañu bokk ba tax na da leen war aar teg ci yiir leen Alassane Seck. Sénégal wax na da ngay préparer benn séminaire le 8 avril prochain euh, projet de décret wala projet de ñuy def défense des droits humains lanceur d' alerte yi ak euh, ñooñu ngay wax donc loolu yaakaar naa ni Sénégal dafa tardé pour l' instant parce que réew mu mel ne Bénin réew mel ne Côte d'Ivoire am na ñoo xam ne ay ay yoon ay loi yu bees décret yu bees pour mën leen aar ba ëllëg duñu am jàqale duñu am ku di mën a tooñ ci loolu ñuy liggéey ñu leen topp bu baax ci internet bi lay activiste yi nag léeg-léeg euh, ñu jéggi baat loolu ko nakarlu mooy ñiy yëngu ci réseau bu tudd paix sécurité ci wàllum espace yore wàllum programme ba ca kuréel googa gis nañ daal des nit da ci wax lu ko neex du ko wér fenn def ko pour yàq der du xam exactement yan toor la ñuy def nit ka donc yaakaar naa ne aussi loolu lu jar a xool la boole ko aussi sunu doom yi tamit des fois dañuy daj information yooyu du ñu xam lan moo ko wund donc je pense que ni il e temps que nit ñi toog waxtaan seen biir ñu xool loolu nan lañ koy encadré dankaafu lu war la waaye lépp na jaar ci yoon la leeral ni ay kàddu moom it secrétaire exécutif bu kuréel gi nga xamante ni mooy yëngu ak ak ci Sénégal di LSDH Alassane Seck. lanceur d'alerte mooy koo xam ne nit la citoyen la am na devoir am na responsabilité di wax yoo xam ne ñëwagul di ko naqarlu di ko jooytu loolu du ko defee biir yoon yoon may na ko loolu yaakaar naa ni kooku lañ ko war a di ko war a tax ñaanal mu gën a ndax loolu moo baax ci réew mi. ci seen ordinateur la ñuy ñoom activiste influenceur wala lanceur d'alerte ñu joxoñ leen baaraamu tuuma ñu am dëggam déet ñu bari dañoo jàpp ne ay terroriste intellectuel lañu maanaam sànni xeer rek la ñu nakarlu mooy ñoom itam ba tey léeg kilifa yi jaay leen doole bu ñu amee gis-gis bu wuuteeg seenu bos. sport gi ak Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay maa ngi lay fay Alajasan sant borom bi ba Eswatini la xaw ma dóorlu ndax équipe boobu moom foog naa ni bu weesoo ñoom ak seen i bàjjen leen xam bariwul. ah ñi leen xam bariwul ndax boo xoolee ci classement FIFA bi ñu ngi féetee ci téeméer ak juróom-benneel fukk ak ñaari place bi. Mm. Sénégal féetee ci place bu njëkk bi ba tax na mën nañoo jàpp ne Eswatini googule daanaka du référence ci wàllu football. Mm-hmm. waaye dem nag dal nañ ñëw fii nii ci senegal ci Stade Lat Dior bu Thiès indi ñu saytaane gu rëy rëy. Mm-hmm. Sénégal sax euh, mën nañoo jàpp ne dañoo rëcc ndax seen bitu égalisation ñu ngi ko dugal ci simili gu mujj gi ko ko dugal nag moo Cheikhou Kouyaté net liggéey ak Malal Junior ci juróom benneel bi simili ci l'équipe bu Sénégal daal di jël but ci benn contre bu équipe Eswatini daal di def ci bal bu ñu dégagé Sabello daal di kon loobee góolu Sénégal bi di Seyni Dieng ca juróom-benn simili booba ba ca juróom-ñeent fukki simili ak ñett Sénégal ci miir bu jaune wow koŋ la dal xale sénégalais yi jéem nañu lu nekk waaye mënutuñu woon dugal équipe bii di bu Eswatini donte moo nekk mbabba dara ci sunu puul wante dajal nañu Sénégal lu wow koŋ ci joŋante bi xale sénégalais yi lu ne jéem nañ ko pexe amul ci ñaareelu mi bi sax ci la am ak lëf lu soppiku dim tan gannaaw ci Baliou Cissé dugalee Diao Baldé Keita Idrissa Gana Gueye ak Sadio Mané ñooña dikk fekk ñu nekkoon ci biir terrain ba ngir ñu fexe égaliser waaye pexe mënutoo nekk système bi Aliou Cissé tegoon nag bokkoon ci 3 5 2 bu nekkoon ñaareel bi yoon mu ko doon joué bokk na ci la ñu ŋàññi bu baax a baax foofa ci stade bu Thiès coow li nag lu muy bëri bëri ba mu jeexee Aliou Cissé moom ne xelam dal na teyit am na njàngat lu bëri lu mu def ci gile système ma dina ko joyanti gën koo ñoŋal ngir jongante yi di dikk mooy di ko jëfandikoo waaye bëri na ay nit ñu toogoon ca Stade Lat bu Thiès seen xool jeex na ndax ne Sénégal munta ne réew mi juutu ci Afrique di dajanteeg équipe mel ne Eswatini mu kaa sonal ba di ko sax yóbbu fin temps ngir rek mu égaliser mu tëwoon ko Malal Junior Diagne ki nga xam te ne moo di sélectionneur bi di Aliou Cissé yëkkati na ay kaddu gannaaw ba jongante gi jeexee la mu xam ne nag moo di bu sañoon ñaari match yi nga xam ne jot na ko football ñaari yëpp jëlee ci match nul suñu diggante ak Eswatini ak itam Congo moo ba tey euh, euh, euh, la mën naa wax ni que si si ñaari match yi nañu joué muy Congo Brazzaville muy tey Eswatini mën naa wax ni que juróom-ñetti point nañu waroon jël tey si ñaari point rek nañ jël si ñaari match yooyu kon naa wax ni que mënuñu mënuñu satisfaire tey ci ci ci résultat boobu donc mu nekk match boo xam ne match bu métti la parce que comme ni ngeen ko xamee football moom ñaari équipe ñoo koy joué. Eswatini def seen bloc bi ci suuf ñu teel a naa wax ni que à partir de septième minute bi ba fin de match bi attaque défense la woon. yàlla def nag ñu égaliser ci arrêt de jeu yi. mais gëm naa ni que équipe bu toll ni Sénégal mënuñu satisfaire ci ñaari point ci si ñaari match yooyu. maa ngi félicité sama joueurs yi parce que mosuñu mosuñu xaddi dañu mos a continuer di di liggéey di di di football ba ba ba bit ñu dugal ko. maa ngi leen di félicité bu baax. mais satisfaction amul jeu amul man gëmuma ni que jeu amul parce que kuy jouer mooy gagné lu ma gëm mooy que groupe bu ñu am groupe bu ñu yore système bu nekk war nañ ci mën a jouer. Euh, c'est vrai que bi ma ñëwee 4 4 nañ commencé bu ñu paree ci 4-4-2 boobu ñu joué récemment 4 3 tey comme nu ma ko waxee ci Kalama Nasaraan encore ma waxaat ko encore. Euh, ñaari match yoo xam ne daf ñu waroon permettre ñu bouger ci système cinq 3 2 kooku di Aliou Cissé di sélectionneur ba équipe nationale bu euh, Sénégal jàppale nag euh, gannaaw loole équipe yi nga xamante ni jot nañu euh, qualifié ci coup d'Afrique ci lu jëm ci waa Afrique sowu-jant mën nañoo jàpp ni daal ñoom ñoo di ñoo ci ëpp ndax am na lu tollook juróom-ñaar réew yi nga xam ne jot nañu qualifié ci googule Coupe d'Afrique ñu na ma amal atum 2022 foofu la ci Cameroun ñoo ci ma ci qualifié moo di Guinée-Bissau ak ñii di waa Cap-Vert Guinée-Bissau moom démb dafa daal di daan Sénégal Congo ca Bissau ñetti bal eh, ci dara eh, ñi nga xam ñoo di requin bleu yu Cap Vert ñoom dañoo daal fekki Mozambique eh, seen dëkk daal leen daan benn bal ci dara bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci Europe ak lii di qualification prochaine coupe du monde bu ñu nama amal ci atum 2022 ca Qatar ni ki a nag Belgique ak Pays-Bas dañ soo daal di bu baax a baax Belgique moom démb dafa daal daan ñi nga xam ñoo di waa Biélorussie Pays-Bas ñoom itam daal am ndam du yaa seen diggante ka ñuy waay Gibraltar juróom-ñaari bal ci euh, dara Portugal moom démb dafa fekk Luxembourg euh, dëkkam dëkkam diggante ma ka ñi di waa Serbie ñaari bal ci benn Pays ñoom dañoo daal am ndam seen digg ak ñi di waa République Tchèque benn bal ci dara 3-3 diggante Turquie ak ñi di waa Lettonie Norvège moom dafa fekki Monténégro ci dëkkam daal ko daan benn bal ci dara Croatie daal daan ci dëkkam ñi Chypre benn bal ci dara Slovaquie dafa daal di daan ñi di waa Russie ñaari bal ci eh, benn li ci des nag ci wàll programme ba tey ñeen lii di qualification lii di coupe du monde Qatar 2022 ci zone Europe danañu ko daal di yeggali ni ki jii eh, ci match nga xam te daal ñu ngi koy amal eh, Bosnie dana tase ak ñii di waa France Angleterre dana tase ak ñii di waa Pologne moo di choc bi sax Espagne diggam Kosovo lay daal doon Grèce ak Géorgie dañ daal di tase Italie moom dana fekk ñi di waa Lituanie seen dëkk Irlande du Nord dana tas ñi di waa Bulgarie ci xayma nag lu tollook fukki match ak juróom la ñuy ni ki tey euh, ci yow yi euh, jongante ñàkkul ni danañ si dellu ci nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen i jotaay xibaar Alaaji Asan sëñ Cheikh jërëjëf dinañ eggalee sport gi ci penco gi ndax euh, ginnaaw jàmmi réew meeg docteur Massamba Gueye dinaa dalal Cheikh Sidiba mhm. ci sa ndimbal lay doon incha allah di ki réaliser national ak ëllëgëm avenir am n'est-ce pas. allah dana gën a leer fii ci kanam. incha ñu dalal Anna moom waa Cap Vert qualifié dégg gis naa muy jubilé bu baax <laughs> <laughs> ci groupe WhatsApp RFM Anna ngir chronique.